jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 seen émission pencum réew mi ñu dellu am mbégte àndaat si ak yéen euh, samedi bu nekk bu 15 heures jotee jàpp 16 heures ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi tey ñu invité euh, Ami Collé euh, Nia moom la ñu invité tey moom nag moo jiitee jigéen ñi nga xam ne. ñoo bokk ci parti bi di PRP euh, euh, parti républicain pour le progrès moo nekk tamit euh, vice présidente jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci coalition Yewwi Askan Wi moom muy milité ci parcelle Assainies soxna Ami ñoo ngi lay nuyu. waa sëñ ji li ñoo ngi lay nuyu di la ziar di baalu àq bu baax a baax nag ci weeru koor bi ñu nekk di sant ñëpp di gërëm ñëpp. Euh, soxna Amy Collé euh, euh, Niang yow nga bokk ci coalition Yewwi Askan Wi comme ni ñu ko waxee sànq yow yaa nekk vice présidente femme Yewwi Askan Wi topp ci madame Aïda Mbodj fan yi ñu génn da ngeen a taxawoon ne da ngeen amal manifestation le vingt neuf le trente ak le trois avril manifestation yi ngeen di sumb nii réew mi di jax-jaxe fu ngeen ko teg waaw sëñ ji manifestation yi nga xamante ne moom la ñuy sumb euh, sénégalais yi yëpp xam nañ li tax ñu koy def ndax dañu nekk ci réew moo xamante ne am njiit moo xam ne jaay doole la fi nekkee ñu am njiit moo xamante ne nasaxal askanam la fi nekkee ak ñi mu àndal loolu moo waral comme nag ñun yoruñu paaka yoruñu jaasi yoruñu pistolet nag suñu suñu làmmiñ la ñu yor ñu génn pour yuuxu ba askan bi dégguñu loolu moo waral euh, manifestation yi nga xamante ne ne moom la ñu doon waaj pour def ko te te li ci li ci li ci topp yëpp gis ngeen ko ba nga xamante ne am na yoo xam dañ ko teg ci suuf te it askan bi ñoo tax ñu teg ko ci suuf surtout le le trois bi le 3 avril ku nekk xam ne ne la 4 loolu loolu fête la boo xamante ne askan bi yëpp ñoom ñoo koy ñoo koy fete kon nag ñun ñu bokk ci askan bi nekk yeewi askan bi du ñu def dara loo xamante ni day lëndëm ci euh, xelu askan bi moo waral le trois bi ñu teg ko ci suuf. waaw mais dañu gis ne yéen waa coalition yeewi askan wi euh, yéen kese nekku leen fi euh, comme ay opposant mais yéen daal la ñuy gis yéen a amee actualité bi yéen a amee politique bi yéen a jàmmarloog Macky Sall yéen a wàcc si mbed mi taali pëna conférence de presse mel ni tulleeg Euh, yéen kese fi nekk lu waral loolu. waaw ñun kese fi nekk parce ñun yeewi askan bi la ñuy def métit métit yi nga xamante ne moo waral ñuy fippu. ah yéen lañ yéen lañu tuumaal. ñun lañu siñ fang. ah tuumaal ñu jël seen bët yëpp singéelu ñu teg ñu teg ñu seen bët yëpp looloo waral tamit ñu gën a fës ci mbir mi ndax bu fekkoon dóor yi ñu dóor ñu ngi koy def ñeneen ñi donc ñooñu tamit nii la ñuy fëse waaye nag comme ñun tamit ñun la ñuy ñun la ñuy dóor ñun la ñuy gaze ñun la ñuy bu bundu xataal di ñu def lépp looloo waral suñu ñu ñu ñu feeñ ci kanamu askan bi rek chaque jour ñuy génn loolu kese la gis ngeen ne boobu ba tey jàpp jàppe bee ngi mel ni tu tulleeg màlle dangay ree sax ñu jàpp la ngay yóbbu garab ñu jàpp la ñun nag bu ñu yuuxul lan la ñu war a def looloo waral suñuy génn mais lu waral bundu xataal gi ñu leen di bundu xataal. li ko waral lenn rek la troisième mandat moom du fi amee Macky Sall jeexal na julli na julleem ba pare te nee na asalaamaaleykum donc nag li ci des mooy troisième mandat du fi am moom ak ay nitam ñuy raam di ñun nag ñu taxaw ci seen kanam mukk loolu du fi am. looloo waral ñu ñuy bundu xataal ne xale yi bu ñu leen tëjee xëy na du ñu voté waaye nag euh, yàlla dafa dogal ne ñi judduwaat ci ginnaaw te am 18 ans te war a voté ñoo ëpp ñi nga xamante ne ñoom la ñu téye. d' accord léegi le 29 passé euh, doon ngeen jéem a yëngu-yëngal am na sax foo xam ne commencé woon naa yëngu ci euh, à part Dakar tamit bëri woon na ay gox yoo xam ne ay Kolda ay Sédhiou ak feneen ak feneen yoo xam ne ñoom amaloon nañ seen doxu ñaxtu ndax quarante six départements yëpp ngeen ko waxoon mm. am na ñoo xam ne autorisé nañ leen mais fu mel ne Dakar autorisé wuñ leen woon mais yow nga nekk euh, jigéen bi nga xam ne yaa jiite femme per yi mm. ñu gis ne siège yu Déthié Fall boobu xam ne fa la leader yeew yi waroon a amal seen conférence de presse dañuy gis takk deer yi ñëw taxaw fa euh, dóor leen ay grenade lacrymogène ba defuwu leen fa seen conférence de presse ban jàngat nga am si loolu waaw di ko ñaawlu rek di jëf ju bon ju salte ju ju bu ñaaw joo xamante ne askanu Sénégal yëpp teg nañ ci bët lu ci mel ni siège u Déthié Fall fa la yeewi askan bi yëpp di tase ñu war a dem def ji seen point de presse ñu ne leen doo leen ko fa defee ci boobu jamono waa APR di def seeni point de presse ñu bàyyi leen tëjal ñu suñuy bunt foo xamante ne ñun ñooy fay suñu xaalis seen dërëm dugg ci ñu ñëw gaari seen camion yi ne kenn di dugg loolu moom dañ koy ñaaw di jëf joo xamante ne jëf ju bona bona bon la fii ci Sénégal dama yaakaaroon na dépassé nañ loolu président Déthié fal ku ne gis na niñ koy gazee fan yi di ko sonal di ko bund xataal waaye nag moom du daw dafa nekk nit koo xamante ne du daw tiitu rafut na askanu Sénégal moo ko ñor ba tax na ñoom yaakaar naa ne seen façon yi ñuy def dañ ko war a teg ci suuf te xam ne Macky Sall wax dëgg yàlla li ko fi dese bëriwul mu génn génn bu rafet tàggoo tàggoo bu rafet loolu moo gën ci moom gën ci askan bi ndax nag ñun duñu dellu ginnaaw te duñu bàyyi. mais mais yaa ngi naan du ngeen dellu ginnaaw te du ngeen bàyyi mais gis nañ ne bu ngeen wootee manifestation. Euh, mbeddi ndakaaru yi rond yi foo xool gis fa takk der yi mel ni Sénégal dafa nekk ci état de siège ndax loolu tiitalu leen. non ñun loolu tiitaluñu te ñoom takk der yi suñuy frère lañu suñuy borom kër lañu suñuy baay lañu ñoom li ñu leen di wax rek defe defe naa ne oto yooyu yëpp di génn essence bi ciy dem yëpp amoon na fu mu xaj. grenade yi. yi ay xaw ma soixante benn bu nekk yaakaar naa ne am na ñoo xamante ne yeeloon nañ ko ndax ci jamono ji may wax ak yow am na ñoo xam ne bu ñu ndogoo du ñu am sax lu ñu lekk kon alal boobu amoon na fu mu xaj ndax ñoo xamante ne dañuy manifester nga encadré leen ndànk ñu dem moo ëpp solo nga génne ay camion dajale ko ci biir dëkk bi ndax ñun amaana ñun bu ñuy bu ñuy manifester amul benn takk der boo xam ne day ñëw foofu ci biir suñu sécurité ñoo koy utal suñu bopp te bu ñu paree dañuy bale ba mu set mbuus doo ko kon xanaa ñoo am jàmm li gënoon kañ mooy mooy ñu ñu ñu ñu autoriser marche yi nga xamante ne ne moom la ñuy woote. te loolooy jàmm ji. mais yéen tey exactement. Euh, ami Collé Niang yéen yeeyu askan wi instant bii lan mooy problème bu tax ngeen di amal manifestation lan ngeen di jàmbat. problème bi yaa ma ko gën a xam. mooy li nga xamante ne dañ koy teg ci euh, ci euh, ndoddu leader yi nekk yeewi askan bi te du dëgg te du yoon maa ngi lay fàttali rek fii en leve nañ fi Déthié Fall ci buntu siège def jëf ju ñaaw joo xamante ne loolu du dëgg du yoon ñëpp ne pat te nit ñaa ngi seetaan boobu ba tey Ousmane Sonko président Sonko gis ngeen fan yii yëpp taxawaay bi nga xamante ne moom la am ci askanu Sénégal ñëpp bëgg ko ñu ne déet du fi am parce que nee nañ moo war a remplacer Macky Sall léegi nag ñoom ñoom ci seen bopp. ñi nga xamante ne am na loo xamante ne na xëy na luubal nañ ko ragal ne président Ousmane Sonko waxam ja mu waxoon bis bu ma yéegee képp koo xam ne sàcc nga di nga fay moo tax ñu ne ko déet yow moom doo yéeg comme danga ñuy fayeeku ñun ñi denc yow moom doo yéeg looloo tax gis ngeen doomu jàmbur ji boobu ba tey bu waree julli ji jumaa ñu baare ko ne ko doo dem doom bu jàng ji ñu ne ko doo dem waaye léegi ñun ba réew la ñu nekk bañ na ba bu waree faju ji sax dugg ci clinique ki ñu toogloo ko ay heure ne doo àgg fa nga jëm léegi ñun fay ban Sénégal la ñu nekk te ci boobu jamono ñoom ñoo ngi naan dañuy lakk ci kër Ousmane Sonko di wax wax bu ñaaw kenn woowu leen ba tey procureur woowu leen kon léegi daal fii dëkk bi ku ma am ndey la ak ku ma amul ndey ñun daal ñoo amul ndey amuñu bàyyi ñoom waa APR ñoom ñoo am nday am baay ba lu leen neex def ko ñun nag gis nga fii dañ dul ci seen façon yooyu ñuy def dara. waaw dañoo gis ne comme ni nga ko waxee sànq aussi. Mm-hmm. mu nekk fee boo xam ne vraiment ñëpp teg nañ si bët. Mm-hmm. dañuy gis ne waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo ngi def tranquillement seen i conférence de si seen siège boo xam ne ñoom ñoo koy fay. Mm-hmm. ci seen xaalis yéen tim seen siège bi nga xamante ni yéen a koy fay ci seen xaalis war fa am sañ-sañ tenir fa seen i conférence ñu ne leen du ngeen ko fa du ngeen ko fa defee loolu tamit mu nekk loo xamante ni ñu bari teg nañ ci seen bët. waaw ba démb démb rek gendarme yaa ngi buntu siège ba encore. xam nga léegi jógee guñ. ba démb démb nii may wax ak yow nag xamaguma dem nañ wala demuñu mais ba démb ñoo ngi fa woon. démb ci àjjuma ji. démb ci àjjuma ji ñoo ngi fa woon man nag loolu laa xamul lan la kër goo xamante ne génnewul ci seen poche fayuñu ko Macky Sall du moom mooy fay defu fa dara léegi ki nga xamante ne mooy fay muy président Déthié Fall teg fa pour di waxtaan ak askan bi ñu xool seen mébét ak li nga xamante ne moo leen métti ñu di ko fa waxtaane ak waa yeewi askan bi ñu deene kooku di dugg waaye léegi loolu rek la bëgg xam moom pour lan la nga bëgg dugg sa kër ñu ne la doo dugg te démb am Mame Mbaye Niang ay waxam dama ko waxul man nee naa man sax ñan ñu bokk waruñu ko bokk moom leneen la waroon sant ndax Mame Mbaye yaakaar naa ne dañ ko def nagu sarax mam bay waaw nagu sarax laa ko jàppee dama ko yërëm ndax démb maa ngi déglu mu naan xam man dama ko xaw a cof nii na awma tempo boo xam damay toog sax di leen déglu ñoom mais deux cent millions yi nga xamante ne moom lay laaj neena daara yi la koy jox ak ñi nga xamante ne ne ñoom ñoo loru woon ci manifestation yi fi amoon ma wax ko ne xaalis boobu bum mu ci sori ndax dina fayaat lu ko ëpp. moom Mame Mbaye Niang xaalis boobu bum mu ci sori lenn rek lañ koy laaj nee na moom seetal nañ ko mais vingt neuf milliards yi Prodac yi nañu nañu ko leeralal ñun loolu lañ bëgg mu leer parce que dañ koy dégg rek vingt neuf milliards vingt neuf milliards nañu leeralal moom moom nee na seetal nañ ko waaye ñun ci suñu xel ñun pour ñun setagul nee na dina jël këru Ousmane Sonko moom la soxla mais moom teg na bët Ousmane Sonko Ousmane Sonko bu muy liggéey këram boobu xamul maam Mbaye Niang moom na jéem a lijjanti këram yi mu am nax lew na wala lewul loolu mooy dëgg te mu jël bëtam yi génne ko ci Ousmane Sonko wante nag dama koy wax lu tuuti gis nga dossier yëpp ñu teg ci ndodd Ousmane Sonko bu ñu moytul moo koy àtteel boppam de mooy toog ci télé bi woo leen ñoom ñëpp ku ci nekk par kenn kenn. Hmm. lépp li nga xamoon dana du woon dëgg. président Ousmane Sonko dina ko àtteel boppam moo tax ma ne Mame Mbaye Niang xaalis bu muy laaj bu buñ ko ko joxee na ko denc denc bu jege rek te xam da koy delloowaat. waaw mais vingt neuf milliards yi comme ni nga ko waxee nii sànq am na leader yu ma gis même euh, Birahim sekk nee na sax mbir mi xaajul bay jeex. Sénégal yi aussi seen dégg-dégg wala li leen gën a intéressé mooy vingt neuf milliards yi nga xamante ni tey Mame Mbaye moom weddiwul na vingt neuf milliards yi am na Prodac mais vingt neuf milliards yooyu fan ak fan nan lañ ko dugalee ndax am na transparence ndax amul détournement ci biir Prodac loolu la as loolu la askan wi bëgg Mame Mbaye leeral ko. moom laa bëgg mu leeral ko moom la euh, premier ministre mu tudd Amadou Ba. moom la bëgg mu leer ministre de la jeunesse bi nga xam ne newoon na ko mu dem leeral moom la bëgg mu leer moom ay ñooñam ci boppam sax dañoo bëgg mu leer kon nag nañu leeralal Mambey Niang leeralal ñu loolu moo gën ngay laaj ay deux cent millions ak ak këru Sonko këru Sonko bi wàcc sa bët te te même Amadou Ba en temps bi mu nekk ministre des finances waxoon ne rapport am na ba na ci rapport moo tax ma ni mu leeral kon ñun ñi nga xamante ne ñoo jàkkaarloog moom dañoo bëgg mu leer kon Mambey Niang ñaari leeral la war a leeral nañu wax vingt neuf milliards yi fan la dugg moom ci boppam looloo war a leer ndax na ko laaj Amadou Ba moom Mame Mbaye Niang ñi mu waroon porter plainte ak a bëri sax Amadou Ba la waroon njëkkee teg si de la jeunesse bi ko waxoon na dem leerali ji doogaa jàkkaarloog Ousmane Sonko. Ah. waaw moom loolu la waroon def kon yow da nga jàpp ne Sénégal yi ba léegi lañ jàppoon moom lañ jàpp. ba tey moom lañ jàpp ba da ngay dox ci mbedd bi sax ñu ne ba tey mbir mi leerul ci seen bopp donc kon xëy na moom mbir mi ci moom la leer mais ñun leeragul ci ñun d' léegi yéen waa coalition Yewwi Askan aussi dangeen di faral di wax ne réew mi daal par parloo moo fi am ñi ànd ak Macky Sall ñoom lu leen neex def euh, lu leen neex wax te yoon du leen woolu dara du leen fekk mais yéen ñi nga xam ne yéen a bokk ci Yewwi euh, lu nit def foofu mën nañ laa jàpp dugal ci kasu bi ba nga xam ne kasu yi fi ne nii kasu yaa ngi fees dell ak ndaw yoo xam ne ñoo ngi bokk ci Yewwi mais surtout sax ci Pastef waaw may jaare foofu sax nag di massawu Euh, seen mbokk journaliste boobu di Yacine. nga xam ne li ko dal buntu PRP la ko dalee foofu ci chaise ba ñu ngi koy masaw di ñaan suñu borom bi fëgg boppam ba mu dellu si ci liggéeyam waaye foofu rek la ñuy waxee ne la euh, sëñ Jili dëkk bii li fi nekk yëpp kenn mënu koo wax te Sénégal dañoo gis temps yi li fi am ba ñu juddoo ba tey mosu fee am képp koo xam ne nekk nga ci Macky Sall loo wax neex na borom kër gi waaye ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ci opposition bi lu ñu wax ñu jàpp ñu tëj di massawu kabaa mi nga xamante ne moom la ñu jàpp mu nekk Parcelles Assainies nga xam ne doomam la doon jël la 14 lañ ko jàpp mooy ki nga xamante ne ñoo ngi naan le trent bii da doon da doon préparé pour def ay ay ay de je ne sais pas moi xaw ma lan lan lañ ci te loolu dafa nekk lu garaaw kabaa dama ko xam kooku muus sax xamul sax nu ñuy reyee muus wala wala sax ginaar kabaa nax baax yaru teey jàppale waa Parcelles Assainies li ñu li ñu ko waxal nii ñun ñu ngi koy seegu dégg ci si ñoom wax dëgg yàlla koo xam ne doomam la jëli ji école ñu topp ko jàpp ko yóbbu ko central ba nii ñuy waxee ak yow Kaba sax ci boppam wérut kon ñu ngi ñaan foofu mu nekk ñu bàyyi ko nu mu gën a gaawee mu dellu ci njabootam. yóbbu kaso. yóbbu nañ ko kaso ci loo xamante ne liñ ko takkal takkal takkal yëpp man dama ne man est-ce que lii moom mun am na. beneen beneen Mamadou saane bi ñuy wax kooku ñoo bokk mairie mairie ci mairie Parcelles yi xale boobu liggéey lañ ko xamal musuma ko gis sax mu yore biriga bay taal bay ba naan day defar euh, cocktail molotov xaw ma nu ñu ko tuddee noonu genre man fii ban man daal dama ne ban Sénégal la ñu nekk amee ñun li ñu xaw a jaaxal tamit ñun dañuy wax naan ñu vraiment ay commando ak ay force spéciales mais wanaguñ ñu aussi ñooñu ñuy tuumaal ay force xam nga force spéciale ak commando wanaguñ ñu daal ay jumtukaay yuy firndeel ni ñii dañoo bëggoon a dugal réew mi ci kaawam waaw man de bu ma sañoon nag ñu wane jumtukaay yi teg ko ci tele bi wan ko askanu Sénégal ñëpp gis ko ba nga xamante ne ñun ñi nekkoon ak ñoom dinañ xam ne ñii lii la ñuy def waaye da ka ñu wax ne loolu la man de xaman saa yi ma ko gisee lu muy yor pap yi ay këyitam dong lay téye ci loxo yi moom de laa ko giseel agenda lay yore ñëw ci mairie bi bu génnee demaat na yoonam yàlla xam na ne kooku campagne bu ñuy daan campagne sax mosuma ko gis sax mu yore loo xamante ne day jumtukaay buy gaañ musuma gis mu def loolu kon nag man affaire yi daf ma jaaxal jaaxal boo xam may ñaan ñu leeral te bu ñuy leeral bu ñu bu ñu jàppatee ay nit ne lii nit ñi lii la ñu def nañ ko wane ci télé bi wane preuve yi ba askanu Sénégal kat xam ne kat ñun ñii ñi nekkoon suñu biir nit nit ñi façon nit ñii la. Ah. mais ba tey dara leeru ci ah, ñun. bu sañoon ñu sañoon ñu wax ñu loolu ba nga xamante ne ñun ci suñu bopp sax dinañu xool bu baax xam ñoo nag ñan la fu ñuy teg suñu tànk. mais di ñu wax ne ñii force spéciale ba pare te ñun ak ñoom ñoo doon añadoo di reerandoo te wax dëgg yàlla mosuñoo naanee ndox ci loolu kon nag doy na waar lëndëm na suñu xel. d'accord mais euh, Ousmane Sonko dañ ko tëj euh, ñaari weeri kaso yum du tëdd mu war a ndàmp Mame Mbaye Niang deux cent millions ñu bari jàpp nañ ne verdict la boo xam ne pour sa la pour dalal tempérament euh, tempérament yi ndax yow loolu nga jàpp. man daal ba verdict bi wàccee tamit loolu laa wax dama ne ñii dañuy tegal glace rek dañuy tegal glace te président Ousmane Sonko xam na loolu. donc euh, ñu ngi leen di xaar ci yeneen anam ak ci yeneen façon ak yeneen préparation yi nga xamante ne moom la ñuy def. ndax def nañ appel. def nañ appel ñooñu doon xaar lii nee naa la lii dañ ko def fu teg glace xëy na 4 avril bi jàll. ok ah ba pare euh, affaire yi daal neex daal léegi nag bu yooyu passé ñu mën a indi yeneen dossier teg ko suñu kanam. waaw non mais xam nga ndax mbir mi sax bu ñu ko yóbboo appel euh, président cour d'appel mooy Amadou Amadou Diouf mi nekkoon procureur de la république xanaa moom moo instruire dossier bi moom moom ngeen di fekkaat tey cour d'appel yow ndax da nga jàpp ne comme manifestation bi ngeen doon waaj trois avril. léegi ñu joxe benn verdict boo xam ne euh, danañ ko mel ni luy dalal dalal tension bi ci bëtu nit ñi pour 4 avril bi bañ am benn problème nga jàpp mbir mi mën nañoo passé 4 avril ñu yóbbu ko appel gën a euh, diisal li nga xamante ni tey mooy daan. manifestation bi nga xamante ne dañ ko teg ci suuf mooy bi ñu waroon def le 3 avril. du de deux mois sursis yi ñu teg Ousmane Sonko loolu moo ñu neex a tax ñu teg ko ci suuf du loolu Sénégal dañoo nekk ci euh, li nga xamante ne mooy 4 avril. di fête boo xam ne sénégalais yëpp koy fête te ku ne xam ne ne bu ñu nee la 4 avril la trois avril armée bi dinañu waajal seeni mbir moo tax ñu jël mbir mi yëpp teg ko ci suuf ngir bañ Sénégal jaxasoo dama la bëgg a wax ne la yeewi askan bi du ñu nit ñi nga xam ne ay nitu fitna lañu ñu woote fitna waaye nag bu ñu bëggee dal ci seen kaw daal daañu jàkkaarloog ñoom fippu yeewi askan bi noonu lay taxawee mais nag lu askan bi yëpp moom muy kat avril looloo waral le 3 bi ñu teg ko ci suuf te ay kilifa tamit bu ñu ñaanee ne teg leen ko si suuf dañ koy teg ci suuf waaye du tee nag incha allah rabbi daañ dañu joxe waat beneen date pour loolu yéen kon maanaam même bu doon tey dañoo seetal Ousmane Sonko daanuñu ko dara sax teewul seeni manifestation dañ koy continuer dañ koy continuer ngir ñi nga xamante ne ñoo ngi ci kaso bi ñu téye leen te defuñu dara dañ koy continuer waaw mais yéen opposition ñi nekk ci euh, pouvoir bi nee nañu yéen ay nitu fitna ngeen da ngeen a bëgg a dugal réew mi ci chaos force restera à loi ministre bi daf koy wax président Macky Sall euh, di ko wax général Moussa Fall fan yi dégg naa ko mu ne Sénégal yi bu ngeen tëddee nelaw leen ba yandoor euh, ñi fi nekk di wax dañuy wax comme ay perroquet te wax yooyu yëpp dama jàpp na yéen waa Yewwi euh, yéen a ko moom. waaw bu fekkee général Moussa Fall man dama mësuta gis Sénégal ab général toog di wax ci wàllu politique ba di ci ba di ci xuus kon man général Moussa Fall ci moom bosam man duma ci sori waaye nañu xam ne rek Macky Sall li ko fi des yi bëreetul te lépp lu ñu àtte dañ ko àttewaat te képp ko waxoon di nga waxaat man ñoom côté boobu moom ci moom moom moom loolu laa koy wax moom. waaye nag euh, ministre bi ngay wax fan la bokk. bennoo. bennoo la bokk kon moom buy wax di waxu ci turu kan lay waxee. ci turu mm. président Macky Sall lay waxee. Mm. kon nag ministre boobu buy wax ñun ay waxam ñun ñun wax dëgg yàlla mënuñu ci dóor suñu doom. waaw ah, mais nee nañ yéen da ngeen a bëgg a dugal réew mi ci kaaw. xam ngeen ne dugal réew mi ci kaaw ñan ñooy dugal réew mi ci kaaw ci seen camp boobu lay jóge ndax ñoom nee naa la ñoom ñoo yor ay arme ñun yoruñu arme yoruñu nervi ñu dara ñun ay loxo neen la ñu yor ñi nga xamante ni dañuy manifester te bu ñu paree bale ba mu sot ba for ay mbuus xanaa ñooñu wax dëgg am nañ jàmm bi ñu def kër Masaar ñëpp teg nañ seen bët akapes est-ce que kenn nee sama portable sax réer na ñi nga xamante ne sax dañuy dem di uti ji mooy jëlkat yi sax bu manifestation amee yeeyu askan bi duñ jël dara parce que xam nañ ne ñii bis bu ñu faloo ñoom seen i jël yooyu ñu daan jël day jeex su sàcc dootul amati ndax dinañ am liggéey ba duñ sàcc looloo tax mosoo gis manifestation yeewi askan bi am ñu ne kenn sama portable réer na wala dara réer waaye nag nañ delloo ci seen xel ci seen onze mois yi des ñu jéem a baalu àq sénégal yi parce que mënatuñ fi def dara loo xamante ne wax dëgg dina feeñ parce que jeexal nañ ba pare. waaw mais mais est-ce que euh, ñoom ñu bari dañuy wax naan yéen euh, bis bu ngeen yoree réew mi da ngeen fayantoo ndax da ngeen di ñëw pour fayantoo. wala ndax da ngeen a ñëw pour jéem a dindi sénégalais si jafe-jafe yi ñu nekk. non Sénégal moom wax dëgg yàlla laajul fayantoo gisa nga guddi ñu toll nii yaakaar naa ne képp koo xamante ne jël nga réew mi am li lay xaar moo ëpp li fi Macky Sall di bàyyi. bi nar a ñëw moo nar a doon président bu gën sonn bu liggéey bi nar gën a bëri ci boppam kon nag ñun amuñu temps di fayantoo wala di tëjee ko ubbi xam nga lu ñuy def jàkkaarloog askan bi waaye nag képp koo xamante ne luubaloon nga xaalisu askan bi ba jël ko. dañ la woore def ne président Burkina Faso bi dinañ la woon ndànk ne la li nga sàccoon indi lépp soo ko indee nga am jàmm waaye boo ko indiwul nag ah yoon dal sa ko comme nit ñi tegee yoon ci kaw nit ñi rek fii noonu la rek waaw mais soxna Amy Collé euh, Niang yow yaa jiite jigéenu PRP nekk vice présidente euh, les femmes de Yewwi topp ci madame Aïda Mbodj sànq yaa ngi wax ne Macky Sall onze mois moo ko fi desee euh, naturellement même moom waxoon na ne 2019 bu ñu ko falaatee moo nekk ñaareel ak njeexantalu mandaam mais fan yi dañoo dégg président Macky Sall moom ni mu waxee daal mooy constitution bi may na ko mu présenté waat même Ismaïla Madior Fall déggaat naa ko mu ne Macky Sall am na sañ-sañ présenté waat Amadou Ba aussi nee na Macky Sall moom mooy seen candidat mu mel ni fi ne nii ñoom euh, ni ñu ko gisee daal seen bëgg-bëgg mooy Macky Sall sampaat ndëndëm bu bu sampaatee ndëndëm yéen ban taxawaay ngeen fas yéene amee. man may wax ci côté boobu xanaa waa APR ñoom amuñu benn góor yàlla boo xam ne war naa mën a wutu Macky Sall wala Macky Sall dong la kon bu fekkee ne APR dafa nekk euh, euh, kii boo xamante ne ne parti boo xamante ne ne Macky Sall kese kese kese moo fa nekk te moom rek moo war a mun a nekk président kon ñoom nañ ko tas parce que nag mbir toujours war nga am numéro 2 ñoom nag gisuma seen numéro 2 amuñu numéro 2 comme nag ñoom moom ah, euh, premier ministre Amadou Ba. dafa ne Macky Sall moom bu nee weex na moom mu ne tàll bu nee ñuul na mu ne kukk moom ay waxam dama ko waxul ndax wax dëgg yàlla waroon naa mën a jël palaasu Macky Sall moom bu doon dëggal na ba pare am fit bu gëmoon boppam bu gëmoon na doon dara ndax man Amadou Ba moom Parcelles Assainies bi dara déjà Parcelles Assainies tey la gën bu nit wàññeeku woon léegi dee pour nga yóbbu ko ci morgue ba oto bi bu amul carbotage du dugg kon Amadou Ba moom ay waxam man dama ko waxul ku mënta defar Ah. kenn xamul kuy premier ministre bi fu mu toll nii te moom lañ ko jox donc man foofu man ay waxu Amadou Ba daanañ gis daanañ gis front social bi bu syndicat yi grévé premier ministre bi di leen di recevoir non mais Amadou Ba moom wax dëgg yàlla kuy waxal yàlla ba ci ñoom ci seen biir xam nañ ni carrément je ne sais pas xawma dafa dafa ne tekk tekkaaral wala daal euh, ñoom daal man seen affaire man comprendre ma ci dara ah, Amadou Ba moom wax dëgg yàlla li ma ko doon wax rek mooy Parcelles Assainies waroon na ko geesu comme moom léppam foofu la waroon na fa def dara ñu joxoon ci baaram ne lii Amadou Ba moo ko def man munuma la ne lii Amadou Ba moo ko def te moom ci boppam munu la ne nii xëy na nag mun nay may xaalis ci suuf mais loolu du amul sens loolu mais nañ ko bopp ànd nañu moom ah ñu àndoon moom yaakaar naa ñaari élection yi leen yeewi askan bi dóor yëpp <laughs> kon dina am dara. d'accord mais ñaari élection yi fi jàll yëpp yeewi askan bi ñoo fa teg tànk. d'accord léegi président Macky Sall juridiquement nee na mën naa présenté wu Ismaïla Madior Fall wax na loolu. Ismaïla Madior Fall ay waxam dama ko waxul ndax moom fii. taxaw ne ne ma Macky Sall mënta doon mënta def de troisième mandat ñett yoon la taxaw wax ko donc moom bu too bu delluwaatee ci askan bi ne Macky Sall na mën na def euh, troisième mandat moom ay waxam kon moom dëgërul. waxi Macky. waxi bëgg président Macky Sall moom man wax dëgg comme yéen journaliste yi Macky bu waree wax fulaam ak faydaam Europe la koy waxee du leen faale yéen bu ñëwee yéen ngeen koy jottali yéen a war a bañ moom bu leen waxatee waru leen sax di ko jàllale parce que buy wax bu bëggee wax li mu war a wax du ko fi waxee fee la koy waxee. waaw mais yéen mais yéen euh, pour yéen nee ngeen askan wi bàyyi nañ Macky Sall n'est-ce pas ngeen wax. Uh-huh. n'est-ce ngeen. Euh, non askan bi moo wax dëgg yàlla war nañ ginnaaw président Macky Sall te moom xam na loolu. waaw léegi même euh, Sonko dégg naa ko benn jour mu ne Macky Sall bu demee na élection. ay vingt pour cent lay am ak euh, quinze pour cent vingt pour cent vingt cinq pour cent léegi yéen comme yéen xam ngeen ne yéen a man Macky Sall comme yéen ni ngeen koy waxee mhm. te yéen aussi ñeme ngeen Macky Sall mhm. ne ngeen Sénégal yi bàyyi nañ Macky mhm. léegi est ce que mënu leen a dem ci ay élection ndax dem ak élection Macky Sall ndax yéen bu ngeen jéemee taxaw ne du Macky Sall du dem manifestation bu amee euh, ay nit ma nañ seedee lu baree bari man na see xew naam ñun d'accord ñu mag Sall posé waat candidature am mais bu demoon ba loolu mënut a ñàkk te yéen nee ngeen askan wi bàyyi nañ ko lan moo tax mun leen a dem ak moom ci élection. ndax dama xam ne président Macky Sall du toog askanu Sénégal yëpp toog mu wax la muy wax ne ci ñaari mandat lay yem kilifa diine yi kilifa aada yi ñëpp dégg ko du moom mooy taxawaat te gis na Macky Sall moo xeexoon troisième mandat ci Ablaye Wade kon moom du mooy taxawaat naan day laaj troisième mandat. di jaar ci kaw askanam ñuy tër kaw di di rey askanam muy jaar ci ñoom pour dem palais te gis nga bis bu forcé ba ba ba ne day dem. Uh-huh. ah. Uh-huh. bu boobaa bu boobaa dina dina Ablaye Wade ba ma koy gën a sedd ndax xam nga président Ablaye Wade ba mu forcé dem dañ ko gañe gañe bu metti uh-huh. mais Macky Sall dix heures ci suba la carte gi di leer. dix heures ci suba. bu forcé bu heures ci suba la quartier gi di leer. te bu forcé di ngeen raag moom ba ba ba seen pexe jeex. no moom waaw loolu moom bul sonn. du sax ñun ñun ñooy raag ak moom opposition ña toogoon seen kër nga xam ne mosu ñoo def politique ñoo ñooy raag ak moom. askan bi askan bi ñoom ñooy raag ak moom. maanaam mbirum troisième candidature Macky moom askan wi ngeen koy bàyyee. laay laa di nga gis paa bu yor xeer di nga gis maire bu yor xeer ñoom ci seen bopp ñëpp du ñu nangu loolu. mais am na ñu wax ne Macky moom demande sociale la troisième bi demande sociale la ñoom dañ koy exiger par force daal dina ko def waa Benno Bokk Yaakaar ñoom loolu la ñuy wax ndax nee nañu président Macky Sall dafa def ay réalisation yoo xam ne daal mënu koo ñàkk euh, yeggale te yéen aussi ay xale ngeen ñoo xam ne maanaam xamu leen nguur euh, ay nitu fitna ngeen euh, loolu la ñoom waa Benno di wax. <laughs> waa ñoom bu leen neexee ñu wax loolu nag wax dëgg yàlla ndax boo nekkee ci cere ji di mëkk bu ñu téyee sa loxo ne dootoo mëkkati bu la neexee wax li la neex ndax ñoom fu mu toll ni seen gémmiñ day nàcc te ku gémminam di nàcc doo wax jàmm ñoom foofu lañ taxaw noonu mais ñu ragaluñu loolu xale lañu xale nag dafa baax ci réew ndax di nga mën a yëngatu di nga mën a wàcc ci terrain bi oyof dañu soxla loolu. <laughs> mais du ngeen ay homme bi mu am moom la moom la Déthié Fall am est-ce que am bu ko bu ko ëppulee njàng bi mu am moom la Déthié Fall am opposition Macky Sall trois ans la ci def Déthié Fall def na dix-neuf ans ci opposition donc kon expérience moom euh, moom moom moo ko ko ëppale moom. waaw waaw dégg naa Déthié Fall ne Macky Sall dafa bi loolu moo tax muy doxalee nii. waaw moo tax xam nga boo defee trois ans ci opposition lay metti xamoo ko yow da nga ko cee def rek yàlla jàppale la nga yéeg bokkut ak ci def dix-neuf ans ci langue gi. xam ruq yi ruqaati jaar ci armée kon kooku loxoom set na te bu ñu ko joxee dina mën a nekk président incha allah rabbi. d'accord Benno Bokk Yaakaar def nañ conférence de presse euh, félicité euh, décision justice bi euh, dal ci kaw Ousmane Sonko dal ci kaw euh, Yewwi Askan Wi ndax nee nañu yéen amu leen programme du ngeen dem ci askan bi mukk ne leen euh, lii mooy suñ programme beneen bi aussi nee nañ yéen waa Yewwi au lieu que du ngeen fi nekk naan du du ngeen manifester pour dund gi cher nag yooyu de nee du ngeen ko waaj mais li ngeen fi wax daal mooy bu ñu wooloo Ousmane sonk wala mbirum troisième mandat daal dafa mel ni yéen moom ngeen jël rek def ko seen programme. xam nga ñoom lan moo ma jaaxal ci ñoom ñoom dañoo am caq ba pare saay bu borom baati nee ni di wax ci ñoom la ñuy xoolee la ñuy wax pour mun a wax ñoom loolu nag jaaxal na ma ñoom balaa ñoo génn rek yeewu askan bi génn wax li nga xamante ne fa lu ñu bëgg a jëm ñu daw defe ji point de presse tontu. yow bu fekkee da ngaa nekk ci nguur liggéey nga def nga li nga xamante ne askan bi yëpp teg ne seen bët looy toppaate bu ñëlee waxee rek nga daw topp si seen ginnaaw amuñu argument amuñu lu ñu wax ñoom xam nga lan la ñu war a def lem basang bi ba mu baax wéer ko ndànk te jéem a ràcc indi jàmm ak salaam mooy dëgg. ñoom dafa mel ni ñoom ñooy opposition bi léegi benno wala. benno mooy opposition yi parce que ñun fu mu toll ñun lu ñu wax rek ñoom ñooy daw. tontu ji ba pare gisoo leen. jeex nañ tàkk ñun nañ ko instant bi sonn nañ tiit nañu dañoo tiit de bennoo fi mu toll nii tiit nañu ba pare nag fan yi euh, Aminata Touré ngi leen koy caw bu baax baax mayu leen dara. léegi si yéen la léegi si yéen la far. non du question ci ñun la far na far askan bi parce que ñun askan bi la ñu faral donc Aminata Touré askan bi lay waxal askanu Sénégal lay waxal gis nga yeewi askan bi comme askan bi la fi teg képp koo xam nga jug nga ngir askan bi tàllal nañ la loxo. kon daal maanaam Aminata Touré mi ñëw di see di fekkee seen i manifestation yéen amul benn problème ci yéen ah? non du question amul problème ci ñun ku ci nekk sa jikko bi nga xamante ne moom la la yàlla moo ñaale yaa ngi ak moom. moom Aminata Touré am na fu mu nekkoon tey jii ñëwaat na pour féetewoo ak askan bi duñ ko dàq dañ koy bàyyi ak askan bi. ànd ak moom. loolu la dañ koy bàyyi ak askan bi comme askan bi moo ko yëkkati dañ koy bàyyi askan bi. ñun waaw mais dalal ngeen ko aussi. waaw lu tax duñ ko dalal dañ koy dañ koy dañ koy dalal dañ koy dalal parce que xeex bi ñuy xeex pour askan bi moo tax ñu di ko xeex donc dañ koy dalal. ba pare jigéen la comme ñun ñu def ko jëf ju ñaaw ba góor ñi bañee takk seen i tubay moo woddu sërëm ba mu dëgër dem ci taal ci ci ci mbedd bi gañe li muy gañe ñu seppi ko ne ko tegal fee góor la ñuy jël loolu nag ñun jigéen ñi dañ koy ñaawlu parce que mënuñu di nekk ci terrain bi liggéey bay bëgg a dee ñu ñuy seppi di teg eh, di teg suñu suñu place góor. d'accord léegi euh, manifestation yi faral di am euh, yàq gi si faral di am ñu si bari di si am ay euh, ay gaañu gaañu. Mm-hmm. ñu leen di joxar bi baaraamu Euh, lu ci sa xalaat. waaw ñun néewuñu kenn mu yàq boo seetee ne yeewi askan bi tey jii tey bu wootee manifestation ñu ko autorisé du am benn problème lu tax ñoom du ñu def loolu. léegi nag bu fekkee ne ñoom dañuy manifester ñu ñuy gazé di ñu def ay mbir mais am na ñoo xamante ne dañ ciy rax. mais ñi nga xam ne dañuy manifester sàccuñu yàquñu mais ñi ca rax ñoo koy def te ñi cay rax nag ñun mënuñu leen maîtriser. maanaam daal ñi ñi ñi gàmmoo ñi ras dem. c'est te ñun nag loolu nag wax dëgg yàlla mënuñu ci mënuñu ci dara ñoom ñoo waroon def li nga xamante ne moom la ñu waroon def ñu ko defoon yaakaar naa tey du ñu am temps di taxaw ci buntu Auchan yi di garder. d'accord mais euh, soxna mi dañoo gis tamit Benno Bokk Yaakaar ñoom saa suñ bëggee amal seeni manifestation wala seeni meeting muy Dakar moom muy fu man di doon ñoom ñoo ngi koy def tranquillement mm-hmm. euh, gisaguñ presque Benno fu ñu leen waxee ne leen yéen du ngeen fi defee euh, seen meeting wala nangam. Mm-hmm. Euh, yéen nag yéen opposition bi léeg-léeg ñu leen koy faral di tere deux poids deux mesures ndax moom nga jàpp na moo ci am. waaw moom li ma la mooy li ma la wax sànq rek mooy ku am ndey ak ku ma amul ndey rek ñun moom bu ñu wootee ñu bundu xataal ñu xam nga lu tax joxew ñu t-shirt joxew ñu xartum yu nuroo fayu ñu kenn kaar xale yi bu yeewi askan bi wootee ñooy ñëwal seen bopp ñoo lay indi sax ndox nga naan ñooy paasal seen bopp ñëw déglu li nga xamante ne moom la leader yi di wax. ñu daal di forme mbuusi dem ñibbi bokkul ak ñi nga xam ne nag ñoom bu ñu wootee daañu wax a wax a wax bay bëgg a dee yàpp Sénégal yëpp ñu jënd ko def ko ay sand jënd t-shirt yi jënd carton yi papa ne fay teg ci ñooñu nag dañoo am coono nag. Oh. bokk ah, ñoom ñu na ñoom dañoo am coono. d'accord jërëjëf euh, soxna Amy Collé Niang yow yaa jiite jigéen ñi bokk ci PRP euh, nekk euh, vice présidente jigéenu coalition Yewwi Askan Wi yéen coalition Yewwi Askan Wi est-ce que leader yi ak juboo am na ci seen biir ndax léeg-léeg nga dégg euh, waa régime bi di wax ne yéen da ngeen a am problème euh, ci seen biir. ñoom ñoo am problème ñoom ñi nga xamante ne bu ñuy def seen point de presse dañuy xuloo dañuy xeex Yewwi Askan Wi ñu ngi sant yàlla bu baax ñoo bokk ndey ñoo bokk baay bëggante teg ci ànduñu benn yoon di jëwante ñoom dañoo bokk ndey bokk baay xam sénégalais senegal rek moo leen ñor. li ñu bëggandoo ñoom ñëpp ñu bokk àndandoo ko bokkuñoo ak ñi nga xamante ne ñoo ngi dóorante ñoom li ñuy séntu ci waa Yewwi Askan bi ñu tas bu yeboo ñoom ci ñoom ñoo ñooñu la gën a jekk yeewu askan bi tasul tey tasul suba ñoom ñooy ànd dem 2024 ku nekk nag di nga uti ji comme ñoom nañ ko signé woon rek ku nekk di nga uti ku génn ci ñoom ñëpp dem jàppale la noonu daal lañ koy defee mais nag yàlla nañu yàlla lafal cet yeewi askan bi ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci salaam jigéen ñi tey la ñu gën a bëggante tey la ñu gën a jàppante góor ñi it noonu léegi euh, soxna mi ñu daal di wax ba tey ci lu jëm ci euh, wàllum euh, front sociale bi gis nañ ni njëg yi dafa njëg yu baree bare fi ne nii dafa daal di yokku même li nga xam ne mooy suukar ci sax fi ne nii dafa daal di manqué yow ngay jigéen di dem ci marché bi lan nga ñu si mën a wax. balaa maa ñëw fii ci yow marché laa jógee parce que tey damay joxe ay ndogu donc li nga daan jënd nga valeur deux cent mille yi nga daan ne da nga koy toggee tey àgg na ba ay quatre cent et quelques tey. ci marché bi nga xamante ne bala boo ci génnee pour ñetti mbana yi nga war a teg rek kon Sénégal ñu ngi jooy bu baax fii ñu toll nii suukar sax doo ko gis fi ñu toll nii nee naa la dangay woor ba ngoon am na ñoom ne fonde la ñuy jox seeni njaboot ñuy lekk ci boobu jamono ñoom ñi nga xamante ne ñoo nekk ci nguur ni amuñu yërmande ñoom bu leen neexee nañu miswi nañu ginaar nañu def lu leen neex looloo tax ñu dee na Macky Sall troisième lay def parce que fu mu toll nii li nga xamante ne moom la askan bi di dund ci métit ñoom bëgguñu delluwaat ci métit boobu loolu tax ñu ngoy rek waaye ma leen di wax ne leen li nga xamante ne moom ngeen denc liggéey leen ci suñu borom ci weeru koor bi. waaw mais mais mais ñoom nee nañ njëg yi wàññi nañ ko mais njëg yi ma ngi yokk ba léegi mais ñoom nee nañ def nañ ci jéego. waaw man may waxeek yow nii marché laa jóge léegi léegi njëg yi bu ñu ko wàññee kon ñaari ñaari Sénégal moo am fan fan fan lañ ko wàññee ak ban marché. Castor laa jóge léegi léegi nii ndugg fu mu toll nii dëgg lu ma la wax damaa sama dama ndugg ba sama xaalis bi yëpp jeex tàkk ma ne waa lii mbaa jàmm la te ni ma ko defee noonu la ko yeneen jigéen ñi di jooyee dama ne xam nga bu fekkee ne yow danga nekk góor yàlla nekk ci sa kër liggéey bi demeewul noonu nga jox sa jabar dépense njaboot gi wër la nga war leen taajal ñu lekk kooku ñaatal nit la seen xol yi di jeex par jour ci mbir moomu rek léegi ñoom ñu toog fee di wax ci ay vingt-neuf milliards kii di laaj ay deux cent millions nan dama koy def ñu ñuy kokkali daal di ñu kokkali di ñu fowe moo tax ma ni sénégalais yi yeewu leen taw waaj incha allah rabbi 2024 balaa boobu xale yi nga xam ne dañu war a bindu ji nañu génn dem bindu ji def ko seen itte te xam ne ñii li leen fiy jëlee mooy ay carte fulla ak fayda ak taxaw taxawaayu bu dëgër a dëgër dëgër waaye yeewu askan bi nag ay yambar nekkuñu fa ay ñu ragal nekkuñu fa ay jàmbaara fa nekk ay ñu bëgg seen réew fi nekk moo tax waa Sénégal jug leen taxaw ci ba muy teel jug leen taxaw ndax ñii fa ñu jëmee ndox amu fa lu jëm ci wàllum euh, prime votant yi maanaam bindu bi. Mhm. Euh, révision exceptionnelle liste électorale yi benn weer bi ñenn ñu jàpp nañ dafa tuuti même société civile bi si ñoo ko doon wax. waaw ñoom ñoo la gën a xam ne benn weer bi que xale yi ñooy fal. te xale yi waroo bindu bëri nañ bëri bi nga bëri boo xamante ne ñoom waroon nañ ko yóbbu ba deux mois ba trois mois bu doon lu jub rek la ñuy def mais benn weer fi xale yi di commencé di dem di bindu ñu nan leen jeex na ba pare dafa am fals yu bari yu ci nekk mais loolu ci kanam incha allah rabbi dinañ ko wax. li ci laxasu yu baree bari bari ci kanam ji dañ ko wax incha allah mais tension politique bi est-ce que jàppoo ne euh, wala lan nga jàpp ne sax moo waral tension politique bi man li ma jàpp ne moo ko waral wax naa la ko jii lii mooy jëf ji nga xamante ne moom la ñii di jëf di ñu won carrément ne ñun yoon bi la teg suñu tànk di ñu won carrément ne ñoo leen ëpp doole yéen ñëpp dinañ leen tëj ci kaso bi yéen ñëpp dinañ leen gaañ looloo waral ñuy fipp nag ndax nit nag doo bàyyi ba ñu rendi la nga soog a nga soog a tëf tëfi mm-hmm. balaa ñu ñëw rendi la ñuy taxaw jàkkaarloo ak ñoom ba askan bi ñu yuuxu ba xam ne ñun ñii kenn du ñu tër waaw mais mais mais soxna mi am na ñuy wax euh, dialogue dialogue ak dialogue ak Macky yéen bu ñuy wax sax opposition bi la ñuy wax ak Macky mais boo xoolee tension politique bi li muy rëy rëy rëy yéen waa yeewe la ak ak Macky wala Sonko Macky jaloog boobu ndax yéen ànd ngeen ci est-ce que yéexul tamit parce que bu fekkee ne da nga bëggeen woote dialogue doo bàyyi ba mu desee même pas un an sax nga daan da ngay woote dialogue moom kay li ñu koy ñaanal mooy yàlla na ko suñu borom bi defal jàmm mu àggale onze mois yi ci jàmm ak daal di organiser élection yi ndax moom du bokk ci ba pare parrainage bi mu teg ko ci suuf ku bëgg a bokk rek mu bàyyi la nga bokk loolu daal mooy mooy mooy li nga xamante ne mooy dëgg mu génn génn bu rafet ak njabootam. waaw mais dafa am ñu jàpp ne ñoo bëgg fexe ba. Euh, faagaagal Ousmane Sonko éliminer ko ba ñu bokk ci présidentielle deux mille deux mille vingt quatre. xam nga ñoom boobu ba tey lu ñu lal suñu borom bi lalli ko ñoom bu ñu seetee ne deux ans ñoo ngi ci benn ginnaaw dossier di daw ba toftal ci beneen dossier te lu ñu lal suñu borom bi lalli ko kon nag dañoo war a jël dossier bi lem ko teg ko de côté te nekk ci leneen. te ñu woote jàmm woote salaam te xam ne benn buur rek a am ci Sénégal benn buur rek a am ci àdduna muy yàlla suñu borom. te yàlla suñu borom nag dernier mot bi moom moo ko yore. waaw mais jàmm jooju ngay wax ñoom nee ñu euh, jàmm la ñuy woote waaye yéen ñi nga xam ne yéen bëgg a dëkkee dëkkee manifester yéen a yéen a woote wut jàmm. ñun dinañ wootee dinañ di ñun jàmm si ñun la njëkkee. ndax jàmm moo waral bu ñu wootee daal di bale ba mu set ba for muusi kon ñoo ñoo woote jàmm ñoom ñi nga xamante ne heure bu ñu génne ñu ngi jël ay pick yu weex tal def ci ay nervi yu yore yi ñëpp gis nañ video yi ci internet bi kon ñooñ ñoo wootewul jàmm dama ne ñun paaka siisu sax yorowuñu ko ñoom ñoo wootewul jàmm waaye nee naa lu waay rendi sa loxo lay ñaati lépp ci seen kaw lay këpp mais fan yële aussi dégg nañ euh, ministre de la jeunesse euh, Malick Ndour mu ne euh, ñoom danañ protéger république bi protéger Macky Sall euh, dinañ dinañ fexe tamit daal ba la fi amoon dootu fi amati. Malick Ndour euh, mooy ministre de la jeunesse. kooku li mu waroon def mooy dajale jeunesse su Sénégal fexe nu ñu amee liggéey te mu ndax euh, waxam ju mujj bi mu waxoon ne day indi mille jeunes ca ACAPES dañ koo gisut moom sax hmm. est-ce mu ngi ci dëkk bi xam nga dafa am loo xamante ne boo nekkee ndaw. ñu fal la pour ndaw yi. Mm-hmm. da nga war a doxal boole ñëpp ñu doon benn rafetal. Mm-hmm. waaye nag euh, naar bu ndaw nag lu mu lu mu wax rek ca berkel la ba la ko déggee moom maalik Ndour man li may wax rek mooy <laughs> moom ci boppam moom laa lay wax moo njëkk wax Mame ñaa demal leeral. kon ñoom dañuy demante seen biir ba pare. Hmm. man kooku aw ma sax loo xamante ne dama ko ci teg. voilà di di di wax ak moom parce que gisuma dara loo xamante ne def na ko pour xale yi mën a mun a liggéey. waaw mais Mame Mbaye Niang nee na bu encaissé deux cent millions yi ci daara yi la koy yóbbu. Euh, ñun xam nga ñun nag wax dëgg yàlla ci daara yooyu la ñu la ñu la ñuy màggee ci la ñu yeroo daara yi am na xaalis yoo xam ne soxlawuñu ko. am am na xaalis yoo xam ne soxlawuñu ko ndax xale yay jàng. dañoo soxla loo xamante ne lu am solo la te lew te moom Mame loolu muy génne di ko joxe du alalam te Ousmane Sonko du joxe dara. ah Sonko du joxe dara te Mame Mbaye maa ngi koy fa maa ngi koy waxal ne ko ñun dañoo bëggal mu leeral ñu neuf vingt neuf milliards yi comme askanu Sénégal nuñ koy nuñ ko waxee te ma fàttali ne ko bis bu forcé parce que Ousmane Sonko du fay askanu Sénégal ñoo nar a fay bis bu forcé ba askanu Sénégal fay. deux cent million yooyu muy laaj. moom Mame Mbaye Niang bu mu ko denc fu sore parce que da koy delloo. da koy delloo waaw da koy delloo. d'accord mais yéen da ngeen a euh, léegi bàyyi ngeen seen manifestation bi wala seen marche bi ngeen bëggoon amal ci quarante six départements yi 3 avril euh, mais dafa am beneen plan d'action boo xam ne moom ngeen bëgg a tegaat après après 4 avril bi. après 4 avril bi loolu conférence des leaders ñoom daañu ciy wax incha allah. buñ ci hmm. àggee dinañ ci wax lañ ciy def. mais kañ ngeen di bàyyi seen manifestation yi wala fii ba 2024 daal yéen da ngeen a bëgg rek di wàcc ci mbedd mi. waaw li pëlit di wax jippo bu Macky Sall jippoo rek incha allah rabbi euh, ñu ñu ñu bàyyi manifestation yi. bu Macky Sall. bu wàccee ci jàmm ak salaam bu wàccee. ñu hmm. bàyyi manifestation yi incha allah. ndax hmm. yaakaar naa ne moom réew mi pour mu am jàmm ci loxoom la nekk. réew mi pour mu am salaam ci loxoom la nekk. Hmm. dew ma troisième mandat. ñu ne ko kon eggali sa onze mois te génn génn bu rafet. parrainage amul. ku bëgg bokk na nga bokk Macky Sall dina am woy boo xamante ne ne woy bu rafet lay doon. waaw comme nag benn président comme président bu mujj bi fi jógee dafa laajoon troisième mandat moom xale bu ndaw bi tey bu taxawee ne kat troisième mandat laajuma ko def naa sama sama sama ñaari mandat damay génn génn bu rafet. organiser élection yi képp ku bëgg bokk bokkal kon nag Macky Sall ñëpp daañu ko tàcc incha allah. waaw mais soxna Amy Collé Niang euh, tey est-ce que yéen bu ngeen yoroon réew mi euh, ñi fi faatu seeni dossier nekk fi tey Sénégal yi amatul amaguñ leen ci leer ak ay rapport yoo xam ne épinglé nañu ànd ak Macky te ba léegi yóbbuñ ko devant la justice est-ce que yéen tey bu ngeen ñëwoon ñi fi faatu 14 morts yeeg ñeneen ñi fi faatu diggante bi yépp di ngeen ko di ngeen ko fas yéene leeral. dinañ ko leeral ngir askan bi ndax askanu Sénégal loolu la ñu bëgg parce que tey jii bis bu ñu bu ñu bu ñu toogee ci boppu réew mi te leeral ñu luubal yi fi am. leeral lu ñu ñi nga xamante ne lañu ñu seen njaboot te ñi seen i waajur a ngi jooy ba tey noppeeguñu kon bu boobaa dinañ ne six ay neuf te loolu la ñuy bañ. loolu mooy lan. mooy benn ñëpp benn lañ ñii politique ñëpp benn lañ gis nga nañu bàyyi di wax ñii politique ñëpp benn lañ bokkuñu fu ñu yere bokkuñu nu ñu juddoo. dafa am ñoo xamante ne dañ leen a yar tàggat leen jàngal leen ñu am ñu am euh, ñu am rusukaay ba pare teg ci am war ma gis nga yeewu askan bi ñi ci nekk ay jullit pur lañu lu ma mën a lu ma mën a seede ñu nekk ay gor yore xolu yërmande ba pare mën a bokkoo ñu ñeme partagé lañ donc ñii bu ñu leen jëlee teg leen ci bopp réew mi muy Déthié Fall muy président Ousmane Sonko muy xalifa Sall muy euh, muy euh, mali gàkku képp koo xamante ne yaa ngi conférence des leaders te am mbébétu téye Sénégal ñoom ñëpp ku ci nekk kuñ ko jox mën nga koo yor. bu ah. rawati nag président Déthié Fall ndax keroog invité nañ ko ci benn télé. gis nañ taxawaay ba mu fa am gis nañ wax gi nga xamante ne moom la wax ak askanu Sénégal ma di ko ñaanal yàlla na àggaleeg jàmm. Ah. waaw loolu daal lay lay ñaanal président Déthié Fall am nañ ci moom yaakaar lool. mais mais est-ce que yéen taxawaay bi ngeen war a am ci wetu Ousmane Sonko dëgg dëgg dëgg am ngeen ko. ban façon taxawaay. maanaam nekk ci wetam buñ ko wooloo ngeen dem jëlee joo këram gunge ko këram bañ koo xaar tribunal ngeen ànd ak moom boobu ba tey damay laaj rek waaw. ba tey ànd nawle la ñu ànd ak président Ousmane Sonko man mii di jigéen rek fépp foo xamante ne Ousmane Sonko taxaw na fa taxaw naa fa. ka ma feeñ ak ma bañ a ñàkk feeñ noonu la ko président euh, Déthié defee noonu la ko xalifa euh, Sall defee ak ñeneen ak ñeneen fépp fu président Sonko taxaw taxaw nañu. Hmm. duñ ko mus a jàmpaaka ginnaaw. xamuñu lu bon yooyu sax. te te ànd bi sincère la aussi nga jàpp. ànd bu sincère bu dëgg ànd bu sincère woon jeex na yàgg na nee na la. ànd gorog nawle la ñu àndee ak moom ànd bu sincère la ñu ànd moom mu nekk ko baax nag. Sonko Sonko dafa baax gis nga nit man ci Déthié Fall laa nekk mais nit da koy waxal jikkoom du yàq ci sa ci sa mbaax dara président Ousmane Sonko wóor na Serigne Touba nee naa la dina làq ñu bëri parce que lañ koy waxal jegewu ko sax kenn gënu koo gore kenn gënu koo baax barki Serigne Touba ku baax la. Hmm. ku baax la ku gore ku bëgg nit. moo tax euh, ñoom ñi xamul rek xamuñu ku am yërmande teg ci waaye nag. nit buñ la jëlee di la bëgg laa faagaagal dangay taxaw nag jàkkaarloog ñi nga xamante ne ñoo la bëgg faagaagal foofu la moo tax ñu naan dafa bëri histoire dafa bëri léegi day xaar ñu rey ko pour lan du fii ku fipp rek ne da bëri histoire man mii loolu lañ may waxal du ñun du ñu nangu kenn du ñu yéeg bopp duñ ko nangu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba duñu seetaan nag ba ñuy sës ci miiru wis bi nag te duñu tourné jàkkaarloog ñi nga xamante ne ñoo ñuy sës duñ ko nangu ah. waaw loolu moom duñ ko nangu yéen daal fii ba deux mille vingt daal. fii ba deux mille vingt quatre jàmm ji ci loxo président Macky Sall la nekk fii ba deux mille vingt quatre dëkk bi am jàmm am salaam ci loxo président Macky Sall la nekk nee naa la ñun yoruñuy kaso tëjuñu kenn moom déggoo lu ma la wax ku ree sax ñu jàpp la page Facebook nga bind fa benn mbir sax ñu ne la kaay loolu kan la. léegi euh, gis nañ bracelet électronique yi am na ñu ñu ko takkal mais ñu ko takkal ñëpp presque ci Pastef la bokk lu si sa gis-gis. waaw mooy li ma lay wax rek ku am ndey ak ku amul ndey gis nañ fi ñi nga xamante ne nañ nañ rey Ousmane Sonko ñii ne nañ dem taal Ahmed Suzanne Camara bu ñu doon takkal rek moom la ñu waroon njëkk takkal te ba tey takkut tey la gën a mën a taxaw di saagata boobu ba tey waxuñu ko dara kon benn ci daal la ñu jël daal di leen bundu xatal di leen jàpp di léegi nag ngeen ñu fipp looloo am ci réew mi. waaw mais yow yaa jiite jigéenu PRP euh, yi euh, président Déthié Fall est-ce que ma ngi préparé deux mille dix deux mille vingt quatre ak lu jëm ci wàllum parrainage bi tey ndax jàpp nga ne tey bu demoon dina am parenage ndax dañoo gis ne bëri na ñoo xam ne tey euh, doon nañu leen faral di recalé ci wàllum parrainage ku si mel ni ay Bougane ak euh, ay Malick Gakou ndax yéen jàpp leen loolu. pardon waa Djily le le vingt huit bi passé le vingt huit mars bi passé la parti bi am deux ans. Hmm. mais Déthié Fall def na dix neuf ans ci ci ci langue politique bi man Ami man mi di def naa seize ñu am nag fu ñu bokkoon nekkoon ci président sa Seck ku ne xam ne Déthié Fall moo doon numéro 2 bu sa Seck kon Déthié parenage ak yàlla mbooloo bi mu ko jox guddi yi ñu toll ni moom parrainage jaaxalu ko lépp loo xamante ne laaj nañ ko ci parrainage dañ ko teg ci table bi ñun loolu moom mu ci suñu ginnaaw. Mm-hmm. waaw est-ce que bi. wóolu naa ko 100 pour cent. ñun pare nañu. non man ngeen ah, a waaw maanaam waxuma. mais dañ ne parenage ci boppam la ñu warut a wax wàllu parrainage la ñu war a teg fee gis nga Sénégal. ku bëgg sëgg ci euh, langum bëri bi da nga war a sëgg. waaw mais xam nga tey dafa am ñuy wax naan parrainage bi euh, dañuy bañ mu nekk loo xam ne nguur gi daf koy jël pour faagaagal ci ñu bëgg a bokk ci élection yi. non Macky Sall moo dul bokk moom parrainage daf ko dul lijjanti bay wax moom moo dul bokk mais ku bëgg a bokk da nga war a bokk mais président Macky Sall moom moo dul bokk mais nag ñun ñoo ngi ñun ñoo ngi xippi suñu bët di seetaan ba xam ndax dañuy àgg foofu ñu naan ñii ñoo war a dem wala ñii duñu dem moom moo dul bokk. du du bokk te yéen yéenay bokk. ñun dañuy bokk waaw incha allah. waaw léegi yéen euh, yéen waa Yewwi moom euh, ndax xam ngeen ne bis bu ngeen jotee si réew mi bu ngeen jéemee wor tuuti askan wi euh, tama moom yéen a koy ëpp buum te bu boobaa aussi askanu Sénégal dinañ faire face jàmmarloo ak yéen. balaa askanu Sénégal sax di jàkkaarloog ñoom man jàkkaarloog ñoom ndax ñun ay góor lañu. mënuñoo xeex ne Macky Sall lii la ñuy bañ ci yow lii la ñuy bañ ci yow ba yeewi askan bi kenn ci ñoom yéeg. Mhm. di def la Macky Sall doon def kon ñun ñooy wàcc jàkkaarloo kooku dañ ko dul nangu tey dañ ko dul nangu suba gis nga guddi ñu toll képp koo xamante ne yéeg nga ci bopp réew mi da ngay jëf li askan bi bëgg mooy ñàkkum xëy bi nga xamante ne xale yi liggéeyuñu mhm. li nga xamante ne ne moom mooy dépense yi ci biir kër gi wàññeeku loyer bi nga xamante ne tey la gën a yokk nee nañu wàññeeku na mais nit ñaa ngi dee parce que borom kër yi yokk lañu seen kër yokk boo xamante ne bu ñu yëgoon sax ne président Macky Sall wax wàññi parce que tey la ñi gën a sonn ah wàññi na location bi. location bi wàññi na ko mais borom ñi nga xamante ne ñoo yor kër yi. wàññiwuñu wàññiwuñu donc kon tey la nit ñi gën a sonn. waaw bu ngeen réew mi tamit euh, comme li ma wax sànq ndax Sénégal yi moom euh, dañoo bëgg ku leen dindi si jafe yi ba pare teg réew yoon bu fi ñëwoon tamit jël justice bi di ko instrumentaliser Sénégal yi dañuy jàkkaarloo ak yéen est-ce que yéen réellement yéen a ngi bàyyi xel loolu. man yaakaar naa ne euh, Yewwi Askan bi tey jii tey bu ñu yoroon réew mi fii kenn ci ñoom lii askanu Sénégal dund seen juróom-ñaari xel xalaatu ko di ko continuer nu askanu Sénégal di ko dund. Mhm. man moom wax dëgg yàlla gisuma loolu. parce que nag. te bu boobaa ku def détournement yoon dina dal sa kaw. yoon dama ne ku yorul yorul bu sell yoon dina dal sa kaw te yoon dañ leen war a bàyyi ñu liggéey seen liggéey. à ñi nga xamante ne ñooy magistrat yi ñu bàyyi leen ñu liggéey ci seen liggéey ci nga xamante ne mooy njiitu réew mi mu liggéey liyam bañ a jaxase euh, mbirum mbirum euh, mbirum euh, mbirum réew mi ak mbirum yoon ak mbirum yoon yoon nañ leen bàyyi seen côté ñu liggéey seen liggéey bañ leen dugal ci dara parce que tamit am na loo xamante ne dem nañ ba borom tëni boo ko daan gis da ngay làqatu respecté leen am cofeel ci ñoom tiit mais dem ba xale yi di leen bëgg ñeme loolu du dëgg du yoon loolu du dëgg du yoon man saa yu ma leen gisee rek da ngay da ngay kontaan sa réew wante nag danga nga naan am na benn bët bu leen xale yi di commencé di xoolee te loolu rafetul. te ñoom ñooy sàmm suñu kaaraange. tey bu ñu mënee nelaw ba yàndoor ñoom la kon nañ leen delloowaat seen njukkal. d'accord waaw léegi euh, Ami Collé waxtu wi euh, mu ngi jeex ndax yéen PRP am ngeen programme. PRP am nañ programme gis nga ko keroog président de de ci junj na ko fële ci télé bi mu demoon. programme bi xam ñëpp xam nañ Sénégal li nga xamante ne déjà boo bindul programme sax war nga ko xam. mais programme yomb na nag mais saafara programme moo jafe. saafara waaw waaw président Déthié Fall moom incha allah rabbi buñ ko joxee réew mi li nga xam ne mooy saafara mooy saafara askan bi li ñuy dund ci métit métit moom moom am na ko te yor na ko. jërëjëf soxna Amy Collé Niang ñu lay sant la gërëm. sa sant nañ la bu baax sëñ Jili merci beaucoup. jërëjëf euh, soxna Amy Collé Niang mbokk yi moo jiite jigéen ñi bokk ci PRP euh, moo nekk vice présidente jigéenu coalition Yewwi Askan Wi mbokk yi li moo nekkoon seen émission pencum réew mi muy am ci rajo réew mi FM samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi gërë ngeen jëf jàmm ak gërë jërë jëf jàmm ak gërë jërë jëf jàmm ak jàmm jërë ngeen jëf jàmm jàmm jërë ngeen jëf jàmm jàmm jërë jëf